ñëwaat mbokku téléspectateurs yi beneen yoon te di jéggalu bu baax a baax ci yéex be tàmbale du suñu coobare euh, no la des fois mu am ay quelques couacs ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bienvenue dans le Good Morning et comme tous les lundis ah lui doit venir tous les lundis mais bon aujourd'hui c'est mardi ah mais ça coïncide aussi avec euh, une journée qui a marqué tout le Sénégal une date qu'on n'oubliera plus jamais. C'est la date où le peuple sénégalais a eu raison sur nos politiques. Alors nos politiques, on va en parler parce nous avons un invité qui est venu de Parcelles Assainies pour nous en parler en tant que leader du mouvement Réaction euh, des Parcelles Assainies. Il mène des actions, action sur action. Et c'est pourquoi le nom de l'association porte sous, euh, il répond sous le nom mu ngi ci ku jëkk gi Go mu ngi ci euh, mouvement associatif, développement communautaire dans la localité des Parcelles Parcelles-Assainies c'est plus une personne à présenter ndax moom bu wàllu euh, don de sang distribuer ay vivres durant les euh, mois de ramadan wala ci korite geeg yooyu euh, ba bu gisee loo xam ne mu ngi raam jëm ci ñag bi mu yëkkati baatam artu ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dégg ci réew mi ne leen mbir mu ngi ñëw ci ñun te loolu bu see du lu baax muy boulimie foncière bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp fas yéene waxtaane dinañ ci dellu siwaat Gofé est avec nous sur le plateau bàyyil ma nuyu ko balaa may jox euh, parole ki nga xam ne on restera ensemble tout au long de l'émission Go nuyu naa la ziar naa la. Abdoulaye ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateur yëpp. di euh, profité occasion bi aussi di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp. ak mm-hmm. les membres du mouvement réaction. maa ngi lay ziar bu baax dinañ ñëwaat ci njëlbeenu ak genèse euh, mouvement réaction bi nga xam ne mu ngi Parcelles Assainies di def liggéey bu am solo lui je vous le disais tout à l'heure il fait dorénavant partie de la team de Good Morning il répond sous le nom de Bathie Drizzy vous ne le voyez pas. vous n'avez pas idée mais c'est une personne qui qui fait rire beaucoup de monde sur la toile et qui balance pourtant des posts avec des vérités ces pincées de vérité que que tu ne pourrais jamais gober si quelqu'un te le disait de manière crue mais lui par il parvient quand même à faire passer ses vérités avec euh, un sens de l'humour assez pointueux en signant doucement en bas hashtag Drizzy Bachir Drizzi à partir de maintenant il sera là avec nous tout le lundi pour parler des posts de Drizzi euh, parce que ça draine des milliers et des milliers de followers que ça soit sur euh, sur euh, Twitter Facebook Instagram il est suivi de partout Drizzi est avec nous di ko nuyu di ko ziar di ko gërëm di ko sant Bachir maa ngi maa ngi lay fay Pape Sidi di la remercier aussi. maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp ak euh, internautes yi ñu seetaan yëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. di leen wax ni léegi bon maa ngi ci tim bi si tim bi laa bokk. <laughs> chaque lundi dama war a ñëw démb xam nga dafa am nu mu demee woon sax. moo tax ñëwuñu waaw ah, démb dama dañu fanaane liggéey ba ay 5 heures du matin. yéen a biddanti démb <laughs> moo tax démb dem ñëwuñu ñu ñëw tey mais bon. dorénavant maa ngi fi si tim bi good morning chaque lundi à partir de 8h30 pour wax si euh, post yi comme ni ko Pape Seydi di waxee rek. parce que bon am na humour mais aussi am na vérité bu nekk ci ginnaaw. Mhm. donc day laaj aussi tamit comme toile bi ñëpp xam nañu léegi euh, dañuy ñëw si télé bi aussi tamit pour wax ñi nga xamante ni bon nekkuñu ci toile bi ñu jotale leen poste yi décortiquer ko pour ñu xam ñu lan la ñuy def aussi. Driss yi mais poste yëpp la ñuy waxtaanee ah. waaw yëpp waaw yëpp poste caaro yi on va en parler ah. <laughs> aussi grand bi ma fi fekk. grand góor <laughs> a maa ngi koy nuy aussi. Euh, di la remercier aussi. jaajëf Drizzy dinañ dellu si waat ci kanam tuuti ak moom ngir xool qu'est-ce qui se passe sur la toile que dit euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il raconte lui que disent les jeunes sur la toile. c'est vrai que beaucoup de gens se plaignent en se disant mais booy ci internet bi foo rek lañu fi nekk <laughs> ils sont pas conscients de ce qui se passe mais on y reviendra tout à l'heure yéen tamit ngeen xam ci kanam tuuti lay doon waaye dañuy dalal koo xam ne mu ngi woyoo ci turu Go Faye mouvement réaction mhm. lan moo nekk euh, motivation de création bi vous vous êtes pas dit un bon jour dañuy tëb dañuy créer benn mouvement parce que ñëpp am nañ mouvement mais il y a une motivation lan la. absolument c'est une excellente question donc euh, pour me revenir sur jeunesse je pense que on était plus jeune ah. je mhm. pense que bi ans c'était en mhm. je pense que conscience citoyenne bi sax demeewul nii mais on a eu l'intelligence très tôt. de penser que euh, le développement devrait passer par un esprit citoyen, mhm. par, par un esprit patriotique. pense que euh, si lañ ko créé woon boobu euh, je venais juste de de de commencer à, à travailler je pense trois ans trois d'expérience rek la amoon mais euh, li ko waraloon moo doon dama seetlu woon ne la plupart des jeunes ils s'intéressaient pas à la chose politique pour ne pas dire à la chose publique. Mhm. ñun ndaw yi dañu doon toog di casse rek jour élection jotee ñu ne non on ne vote pas politiciens yi benn lañ donc je me suis ok pourquoi pas. Euh, man mi nga xamante ne Sénégal laa jàngee euh, demee fi université amee fi liggéey quelquefois j'ai bénéficié de l'État du Sénégal à travers les bourses universitaires. Mm-hmm. ma nekk euh, Cheikh Anta Diop. donc je me suis dit suma compétence bi nga xamante ne je l'ai acquis fii nii si Sénégal di ko mettre au service du secteur privé ma ci am salaire pourquoi pas ma mettre ko au service de ma communauté à travers euh, la politique ah à travers euh, le conseil municipal donc à travers la conscientisation des jeunes. noonu lañ defee di def dimanche citoyen di conscientiser jeunes yi di leen wax leur responsabilité mhm. et que la jeunesse devrait prendre son destin en main donc mhm. euh, noonu lañ ko créé woon c'est ça l'idée d'origine mhm. ba on a senti qu'on avait quand même on était assez fort donc image yi ngay gis moo doon image où je pense c'était une caravane de sensibilisation ci inscription ci liste électorale yi donc tout ce qui est action li nga xamante action politique bi ñu inscrire ci liste électorale dem bindu ji ci liste électorale yi. absolument c'était allé allé aux élections présidentielles bii weesu. Euh, non bi élection euh, législative ah, autant pour moi. donc mais en j'ai été candidat aux élections locales. Ah, ah. à l'époque comme ni ma koy waxee rek j'avais 32 ans c'était c'était pas de la prétention. mais dama gëmoon ne euh, question de compétence la pour diriger il suffit pas nga nekk ci parti politique am sa temps yëpp. ñun on est des technocrates on est des professionnels mais nos compétences bu ñu ko bëggee mettre au service de notre communauté il faut que ñu toog ci instant de décision mhm. yi moo taxoon ñu dem on a on s'est challengé xool exactement ce qu'on pesait je mhm. pense que à peu près 1000 personnes voté woon nañ ñu on n'avait pas la prétention de gagner les élections mais xool exactement est-ce que j'avais le leadership nécessaire pour tenir un discours cohérent un discours euh, jeunes à être beaucoup plus responsable je pense que ça a été. <laughs> une boobu si mu ngi lay waajal ci bi di la bëgg a di la di la di la napp napp yu métti si euh, on y reviendra tout à l'heure est-ce que gestion bi muy doxalee parcelle waa parcelle yëpp am nañ ci unanimité euh, danañ ci dellu si waat léegi léegi bi ngeen créé association boobu euh, c'était purement une association politique. non alors da nga am parti boo boo boo booy jàppal tànk wala da ngay ñëw sa yëfu boobu. non non non c'est ça notre euh, notre su sunu particularité quand parce que mm. j'ai compris tôt que il suffisait pas nga militer ci parti politique pour mën a aspirer à à diriger c'est-à-dire. looloo taxoon sax ci élection référendaire 2016 yi bi ñu jëlee ci jógee ci élection locale yi parce que j'ai été obligé lors des élections locales d'aller emprunter un récépissé pour ñu accepter ma en tant que particulier koo xamante ne milité wu ci benn parti c'est-à-dire jusqu'en 2014 il fallait que tu obligé nga ñu benn parti politique mandaté la pour nga mën nekk nekk candidat alors que en 2016 bokkoon na si euh, points yi nga xam les 15 points du référendum bi nga xamante ne dañ ko valide woon la candidature indépendante c'est la raison pour laquelle mhm. on a battu campagne lors des référendums pour que ça passe en tant que mouvement citoyen mhm. d'accord donc bi ñu jógee si loolu aussi j'ai été euh, tête de liste du département de Dakar bu bees toujours une liste citoyenne ci élection législative de 2000 2017 euh, yi donc mmh. euh, boobu aussi on a eu à peu près 3000 voix si si si si Dakar c'était c'était satisfaisant juste pour wax rek ne dañu bëgg a démystifier euh, la politique c'est-à-dire montrer aux gens que la politique c'est quelque chose de de de noble mais c'est c'est la manière dont les gens font la politique moom moo xaw a salté donc ñun ñi nga xamante ne peut-être on est non xawul salté go je suis désolé mais politique Sénégal dafa salté ah sàcc <laughs> wax askan bi lu dul mhm. bu ñu la gisee ba gisaat la élection la. Mhm. amuñ soxla ci yow bu ñuy ñëw ci élection yi dañuy làkk wolof yu leer nañ. wax la li ñu bëgg ci yow. jébbal la ay kàddu gor. fekk ji gor yi sénégalais yi nga xam ne dañu loof. ñu mhm. tuuf leen ay tuuti xaalis. léeg-léeg wax leen wolof yu leer ne leen dañoo bëggoon ngeen jox ñu euh, li tax ñu mën leen a dimbale. ñu jox leen ndombol tànk maanaam ñu jël seen i baat dénk leen ko bu ñu xasee ba falu. commencé di làkk français yoo xam ne déjà pour nga dégg ko il faut nga laal dictionnaire te booy laal dictionnaire ñoom romb nañ. Mhm. ba ci président de la république sax buy wax ak sénégalais yi léeg-léeg euh, dafay mel ne sénégalais yi ñoom dafa am benn parti boo xam ne rek lay waxal. les discours en français la politique elle est très sale au Sénégal les gens qui font la politique ne respectent pas les sénégalais. les Sénégalais autant pour moi. yow façon politique boobu noo ko gisee politique bi ni ñu koy defee Sénégal yow est-ce que vous partagez ce que je viens de dire comme ça. je partage parfaitement ce que tu viens de dire Pape parce que loolu sax moom moo tax ñu dugg si. moo tax aussi j'avais pas euh, fait l'option de militer dans des partis politiques parce que gisuma woon parti bu nga xamante ne le comportement des jeunes mënoon na ma euh, inspirer confiance c'est-à-dire euh, ils sont en train ils étaient en train les partis d'endoctriner les jeunes c'est-à-dire da gis jeunes yoo xamante bu ñu nekkee ci parti bi saaga xuloo lañ leen di jàngal. Mhm. du ñu apporter valeur ajoutée. alors que moi jeunes yi ci parti. c'est c'est kaay leen saagante kaay leen xeex. absolument <laughs> ma c'est ce qui est malheureux maintenant est-ce que on est obligé ñun ñi nga xamante ne. tey on milite pas dans des partis politiques bañ a aspirer à diriger. alors mhm. que dans les entreprises où on a eu à travailler on a dirigé. Mmh. c'est-à-dire on est des technocrates on est professionnels on sait atteindre à travers des résultats. Mhm. man je pense que ce pragmatisme là bu ñu ko implémenter eh, en milieu politique dans les partis politiques ça peut réussir d'autant plus que loolu rek la implémenté dans le mouvement réaction. Mhm. et et c'est parce que. j'ai participé comme ni ma ko waxee élection locale 2014 élection législative te incha allah prochaine élection yi am nañu yaakaar ne la jeunesse est en train de s'approprier notre discours et que incha allah on va apporter le changement au parti. doo bokk ci benn parti politique. bokkuma si benn parti politique maintenant y' a des. pour euh, pour revenir li nga wax sànq pour revenir si li nga wax sànq. c' est vrai que bu nekkee en termes de pourcentage 100 pour cent des partis politiques ils sont ils ont ce comportement dont tu viens de parler tout à l'heure mm-hmm. mais nag même bu nekkee 2 cent 5 pour cent la y' a des gens valeureux des patriotes yi nga xamante ne ñu ngi politique mais en apportant autre chose. c'est-à-dire tous les politiciens dans l'opposition sont valeureux. non je suis pas d'accord excuse-moi je suis pas. tu pas d'accord mais man par exemple damay gis ay politiciens yoo xam ne bu ñu nekkee ci wujje gi soxla baatu askan bi dañuy am valeur am ay convictions <laughs> mais bu ñu xasee ba ni ciix li ñu soxla. ba ci ba dañ dañ dañ dañuy sax da nga naan non mais c'est pas la même personne. ou les mêmes convictions dont il nous parlait. oui lan moo nekk ci pouvoir luy changer loo nit comportement mais dafay compliqué quoi en fait. oui en fait. côté bi nga wax nii je suis je suis parfaitement d'accord. yow da ngay bokk da nga tu prévois bokk ci benn coalition de parti wala bokk ci benn parti politique wala da nga bëgg def sa yëfu bopp en singleton. bon en fait euh, moom mooy mooy mooy li ma wax sànq c'est-à-dire dañu nekk si. waaw du ngeen ma dimbale si borom téléphone boobu bu ko mënta fay mu génn fii. <laughs> dañ nekk si contexte bi nga xamante ne. Mhm. Euh, conscience citoyenne dafa commencer jël ampleur. <laughs> Uh-huh. c'est un phénomène international ah yemul Sénégal kese c'est-à-dire le peuple. a compris que il est plus fort que les les l'homme politique. Mmh. c'est-à-dire on n'a plus besoin de se rec proclamer politicien di sol ay costard cravate d'être trop trop sérieux se faire trop trop sérieux pour que nit ñi euh, euh, comprendre la c'est-à-dire jeunesse bi léegi comprendre nañ ne question de compétence la question de vision question de leadership maintenant pour confirmer li nga doon wax sànq ñi nga xamante ne tey bu ñu nekkoon ci opposition ils te promettent le ciel et la terre. cest à des politiciens de métier, ils n'ont pas de métier. Mhm. Moi, suis banquier, je suis économiste de formation, j'ai pratiqué la banque pendant plus de dix ans. C'est-à-dire am valeur ajoutée bu may mën a apporter sama commune à travers mes différentes expériences et les responsabilités que j'ai eu à occuper dans le cadre professionnel. Mais boo xoolee la plupart des gens yi nga xamante ne sont dans le secteur de la politique, dans les partis politiques. un parmi eux ça pas dit qu'il est bon est-ce que tu go go tiital nga ma de go go Macron kii la de banquier la de oui mais en fait <laughs> mais tiital nga ma de bàyyi ma laaj bàcc moom ban appréciation la def si politique ak jeune pour yow man personnellement euh, sama expérience wala sama xalaat personnel laay wax jeunes yi si politique Sénégal pour man li ma jàpp mooy dañ ay euh, genre xar lañ leen def quoi ay xar bu xeex jotee wala saagante ci internet bi ñoom la ñuy jiital. après ñu jox leen ay miettes ne leen euh, waaye yow booy téye le jeune du parti. Mhm. après ñoom ñooy dem taal. ñoom ñooy dem def affaire nervi yi affaire waga la ñu def loo ñu màggee ci noonu noonu lañ leen di jàngale politique quoi da ngay wax ak benn mag sax leader mu ne nos jeunes du parti vont régler ça c'est-à-dire ils vont faire euh, à ces à ces mais malheureusement boo booy bu dix jeunes bañee deux jeune yu amul benn palto amuñ place dinañ ne non parti bi man lañu responsabiliser man maay dem mhm. xeex. te doo gis ñu responsabiliser benn jeune bàcc. waaw comme li grand bi wax rek euh, te si loolu sax laay ñëw tey sama post bi si loolu lay wax. message à la jeunesse pour. Euh, kon donc ça tombe juste. Mhm. boo xool li nga wax dëgg la boo xoolee jeunes yi tey gars yi dañ leen utiliser pour xeex. récemment gis naa ay jeunes yu dëkk Pikine yoo xam ne noonu la demee ñuy def ay marche naan parce que amuñu ay poste affaire yooyu noonu alors que ñoom bi campagne bi di am ñoom ñoo ñoroon ñoo porté woon combat bi mm-hmm. doon xeex donc kon loolu la leen di doyee parce que dañ leen di xeexloo ba pare bu ñu leen xeexloowee ba am li bëgg fàtte leen après nag ñoom ñooy retourné nekk au chômage du ñu am lu lekk du ñu am lu naan mm-hmm. après lu mujjee def nekk naan ay dañuy di def ay marché di dugg si lii donc mm-hmm. il est temps ñu yeewu bañ ku leen utiliser parce que tey boo xoolee population bi 65 pour utiliser la am li ñu bëgg dem seen yoon donc mhm. loolu tey si loolu sax laa ñëwoon pour wax pour jeunes yeewu mhm. am beneen vision bu ñuy xalaatee xam nga pour mën a jël seen i propre décision parce que après ñoom ñooy sonn mais tey xoolal ñaata jeunes ñoo fi toog Pape Sidi liggéeyuñu boo duggee si net bi xam ne jeunes yi bëri dañuy xoolee exemple ah. da ngay reetaan <laughs> gis nga ndeysaan xoolal benn vidéo euh, mbër la quoi mhm. xaw mbër la xaw dafa am doole mhm. euh, mu ne waa euh, ñoo lànk ñoo bañ nga xam ne ci affaire courant bi moo tax ñuy wax ne waaye courant bi dafa cher na ni na na mu ne ñoom ñooy waa ñoo nangu oh. <laughs> dañuy taxaw si buntu fii waa ñoo lànk di defee conférence de presse pour xeex ak ñoom après ces vidéos là ils vont l'amener à ces leaders absolument euh, ils seront contents en disant <laughs> xoolal sama gars yi sama sama jeunes yi ñoo tax uh-huh. booy yi defuñu seen conférence de presse mm-hmm. regarde façon euh, genre utilisation mais bu bu terre à terre même mm-hmm. Euh, xar sax xay na boo ko doon def loolu ci jamono ji dina utiliser xelam ne non mais man buñ ma man nit laa quoi euh, c'est malheureux ba pare ils s'affichent sont fiers de ça mm-hmm. et ce qui est dommage mm-hmm. on parlait tout à l'heure de ces actions que vous étiez en train de faire aux Parcelles Assainies durant les activités avec euh, euh, d'ailleurs Abou c'est c'est l'élément qui suit pour les dons de sang expliquez-nous pour avoir l'estime des Parcellois wala vous vous sentez qu'il y a un manque bu am si point boobu ngeen ñëw pour bëgg ko def en tant que acteur politique dans la localité. Hmm, merci donc pour ñëw si premier point bi euh, c'était par rapport au don de sang. Mhm. donc vous n'êtes pas sans savoir que les banques de sang actuellement au Sénégal sont sont sont, sont vides. très bien c'est-à-dire deret dafa manqué. Hmm. Euh, loolu nag li koy expliquer bëri na. Euh, c'est-à-dire ak contexte mondial bi ñu nekk avec la pandémie du Covid 19. Mm entreprises yi dañu wàññi seen i personnel. Mm-hmm. les gens ils sont plus dans le télétravail. Mm-hmm. les écoles élèves yi jàngeetuñu ak université yi. alors que 60 pour cent deret bi nga xamante ne euh, centre national de transfusion sanguine moom la doon am pour mun ko jox médecins yi pour ñuy mën a dimbale ñi nga xamante ne ils en ont besoin en cas de de opération chirurgicale euh, ou bien des accidentés de la circulation ou bien femmes yi nga xam ne dañuy accoucher foofu lañ ko doon jëlee. Mm-hmm. donc le contexte ne permet pas dem di euh, collecter du foofu. ñu toog y a deux semaines je pense que euh, le président Ousmane Sonko lancé un appel euh, national au don de sang je pense que on est un mouvement citoyen ñun on n'a pas de coloration politique képp koo xamante ne initier nga action bi nga xamante ne euh, ça ça en esprit citoyen ça en esprit patriotique duñ la doon ci xaar mhm. parce que gënoo ñu nekk sénégalais automatiquement on a pris date avec euh, le centre national de transfusion sanguine parce que on a une capacité de mobiliser les jeunes à travers de nos, à, notre, à, travers notre discours. Mm on, est, des leaders, excusez-moi du terme. Mm -hmm, bien sûr. Donc notre leadership dañ ko war a utiliser de manière positive d'accord donc euh, manière positive boobu mooy ma fédérer l'ensemble des jeunes yi nga xamante ne ils ont confiance en moi je leur dis il faut qu'on fasse une journée de don de sang bi mooy suñu troisième édition mhm. et ça nous a permis quand même euh, de collecter euh, plusieurs poches je pense que on était on avait un objectif de 500 mais avec le Covid-19 les gens ils ont un peu <laughs> peur nombre de poches de sang bi gars yi andi woon tam bëriwul à partir de 13 heures avec la chaleur aussi les gens de CNTS ils ont été obligés de bouger on a pu réussir à avoir poches de sang mhm. c'est bon parce bien. des jeunes de Grand Yoff des jeunes de Guédiawaye s'ils a des jeunes aux Parcelles Assainies qui ont contribué à sauver des vies ils vont le euh, bon on se connaît parce que j'ai je l'ai accompagné lors des élections euh, présidentielles de l'élection présidentielle de 2019 de manière inconditionnelle on s'est appelé téléphone il a voulu passer chez moi me voir j'étais euh, je suis venu, il a envoyé sa délégation pour solliciter mon soutien. Je l'ai soutenu de manière inconditionnelle. J'ai soutenu son programme et euh, l'esprit citoyen qu'il incarne. C'est aussi simple que ça. Sinon, pas de, pas de truc personnel, quoi. D'accord Donc, deuxième point bi moom moo doon euh, les, les 1000 euh, poulets qu'on a offert euh, sécurité bi. Mhm. xam nga dañ nekk si en toujours toujours comme ni ma koy waxee si contexte coronavirus. ñu defoon ay mesures Euh, restriction de de de la liberté de gens cest a dire vingt et une heures ñëpp tëddi liggéey bi wàcc euh, liggéey teel a wàcc c'est-à-dire mu ñu subir une sorte de récession économique c'est-à-dire production bi wàññeeku au niveau international mu répercuté wu au niveau national aussi c'est-à-dire dëkk bi metti parce que man position bu ma nekkee dinaa mën a comprendre exactement méttiwaay bi parce que dañoo ay mbokk yoo xam ne ñu ngi si dëkk ba. Mhm. am ñoo xamante ne secteur informel fi la ñuy liggéeyee. Mhm. mu metti dëggantaan. bien sûr. donc je me suis dit Korité lañu nekk metti na man est-ce que c'est normal que man ma am lu ma jëndee ay ginaar avec ma famille ainsi de suite te boo yàlla suturaalee ba mu mën man ak mes quelques amis euh, dimbale ay nit ñoo xamante ne c'est notre voisinage proche waa Parcelles Assainies ça nous fera plaisir. et puis mhm. dañ ciy jaamu yàlla quoi. c'est comme ça que j'ai mis mes avec mes amis a collecté deux deux millions de francs CFA en deux jours. dem Kër Massar on a acheté 1000 poulets à 2000 francs l'unité. Mhm. ñëw séddale ko ça nous a fait plaisir. ça ça ça peut ça mhm. su ma gën ganaar yaa nga foofu ma ñëw jaar jël ñaar. et ma conviction Pape Sidi <laughs> moom mooy le développement passe par la solidarité. il faut que les gens aient de si seen prochain. mais bu fekkee dañuy topp philosophie doctrine politique yi nga xamante ne le capitalisme 100 pour cent libéralisme 100 pour euh, parcelle laay gis <laughs> non je te jure Dakar fii parcelle laa loge bi ma dikkee ba léegi mosuma tuxu foofu ma dëkk foofu laa dëkk ci ruxu boobu. Mhm. Euh, mooy ci booru julleekaay ñaari rakk yi noonu. xam mhm. naa jàmmalaay la ñu bëri di wax wala unité 23. xaw dafa mhm. xaw ma am ay mbir yu ma seetlu parcelle dafa mel ne ñëpp seetlu wuñ ko. parcelle bokk na ci gox yi gën a am doomu aadama ci Sénégal. absolument surtout ci Ndakaaru ci banlieue bu Ndakaaru waaye mbeddu parcelle ngay gis tali yi dem suuf si nangu. te liggéeyu mairie la hmm. su ma juumul hmm. parcelle ngay gis mbedd boo romb gis tiwo wala canalisation bal di sonal nit ñi parcelle it ngay gis ay parking yoo xamante ne nii wala ay oto yoo xam ne fi ñu gaare ça fi plus de dix 17 ans ñu ngi fa gaare ba léegi bonjour hmm. parcelle ngay gis lu toll ne parcelle hôpital Ma Abdou nga fay dégg <laughs> ci plus presque 900 000 habitants 300 000 300 ah. 300 000 300 000 habitants. bu ñu oppee boo demee euh, hôpital Maam Abdou dañ naan la sparadrap bi faj wala première soin da ngay dem ci pharmacie bi jàkkaarloog ñoom nga jënd ko ndax ñàkk mois. Mhm. parcelle ngay gis mu am ay dëkk boo xam ne dafa fes dell ak ndaw amuñu fu ñu divertir benn terrain moo fa nekk akapes et c'est pas utilisable pour tout le monde du sport yëpp du discipline yëpp ñoo ko mën a def gestion wu Moussa Sy naka nga ko jàngatee. <laughs> ak lu loo xam ci woppal parcelle lu ma limu hmm. man je me réjouis ah comme euh, analyse bi nga def ci situation économique Parcelles Assainies yow yaa ko def du man parce que peut-être hmm. bu ma ko defoon directement on va se dire que ah il n'est pas avec le maire actuellement moo tax mu def ko te li nga wax dafa des d'autres mots c'est-à-dire damay commencer par bu njëkk bi la santé hmm. euh, le contexte actuel dafa montrer que les priorités dañu war a changer parmi ces priorités yi nga xamante ne ñoo gën a prioritaire excuse-moi du terme la santé. Mm-hmm. une population bi nga xamante ça avoisine les trois cent mille euh, personnes la population électorale bi gën a importante ci département de Dakar c'est-à-dire si dix-neuf communes yi nga xam ñoo constitué département de Dakar Grand Yoff moo ëpp population mais Parcelles Assainies moo ëpp électeurs on est à je pense que en tant que homme politique ñi nga xam ne nos dirigeants war dem poste de santé centre de santé Mame Abdou. amul rajo amul scanner. déedéet amul dara. depuis sec ba ma damay commencé politique di am trentant ba léegi maa ngi koy wax man j'ai été obligé à travers mes relations à l'international dem wuti équipement des équipements médicaux des lits d'hospitalisation ànd ak matelas des lits de dernière génération ñëw may ko centre de santé Mame Abdou pour montrer aux hommes politiques aux dirigeants que boo leen ñu defarul. ñun suñuy doom waa Parcelles Assainies màgg nañ te am nañ ay compétence yàlla suturaal na leen te boo leen ñu defaral dinañ defar maintenant. te mu taxaloog mairie bi. mu taxaloog mhm. ñu mayee fa 20 millions man am naa samay maire yoo xam ne dañuy dem ba foofu bu ñu hospitalisé dañu may woo téléphone sa lal laa tëdd. tu comprends juste pour montrer que euh, euh, l'homme politique à échoué l'homme politique classique. Mhm. c'est-à-dire une population électorale bu toll noonu man pense que euh, war nga leen bàyyi xel. en quoi faisant li nga xamante c'est des besoins prioritaires des besoins d'urgence nga régler leen ko mhm. maintenant je parle pas de seulement le maire je parle de l'État en général mhm. parce que bu ñu ñëwee si volet sport Amadou Ba moom mooy xale xale rapide moom ay milliards lay dugal élection yi parce loolu <laughs> peut-être c'est un autre domaine mais quand je parle de l'État je parle par exemple si domaine côté ministère de la santé mhm. c'est pas normal ñuy sunu sant ñu am centre de santé c'est pas normal le maire aussi a son rôle à jouer mais moi je je je j'accuse tout le monde bu ñëwee si volet sport Pape Sidi Pachel nga dëkk mm-hmm. depuis 2009 amuñu stade waaye fi mu toll nii inauguré nañ ñaari stade c'est-à-dire euh, stade bi nekk euh, Ndiarème inauguré mm-hmm. nañ ko euh, Ndiarème Limamou Laye Ndiarème Limamou Laye am na benn stade Alassane Djigo am am nañ ko Pikine am nañ Alassane Djigo Amadou Bari Amadou Bari mm-hmm. excuse-moi boo demee euh, mairie parcelle gis naa ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dégagé euh, yi nekkoon si ginnaaw stade bi ah. waaw dindi stade bi defe naa pare na de. non non non wala des na. dina nañ cantine yooyu yëpp bi élection yi jubsee le ministre de sports ñëw foofu ne telle date stade bi dina pare. xam nga loolu mooy <laughs> euh, politique politicienne bi ngay wax noonu ak discours yi nga xamante du dëgg. waaw ah, dañ lay nax. dañuy nax cest à nax nañ ñu naxate ñu 2009 ba léegi Parcelles Assainies nu mu toll ak fu mu nekk ci Sénégal. amuñu stade suñu booyee dañuy dem Guédiawaye wala Pikine wala Amad wala Demba Diop di dem football yi mhm. mënuñu épanouir gën nañ am professionnel depuis Moussa Ndiaye parce que amuñu infrastructure sportive déedéet est-ce que tu trouves ça normal lool la ñuy décrier loolu la ñuy jooy léegi suñu bé seul espace bi nga xam ne moo fa desoon muy suñu géej gi parce que parcelle dafa am particularité moo am géej bi nga xamante ne 300 mètres de plage la am c'est-à-dire diggante ndox ak fi nga xamante ne moom moo nekk euh, fële ci kaw tali bi loolu ñu waroon ko mën a aménager parce que boo xoolee équipe nationale bi soccer Parcelles Assainies la ñuy entraîné foofu la ñuy loger ci benn hôtel. Mm. tellement la plage am na espace. ñuy dem ay compétition internationale des, des compétitions internationales c'est-à-dire coupe d'Afrique ak coupe du monde mm. gis nga loolu mm. c'est pour promouvoir la destination Sénégal foofu Sénégal mën a organiser coupe du monde beach soccer pourquoi pas coupe d'Afrique la destination parce que destination Parcelles Assainies ce dont on compte gis nañ ne ak coowu littoral bi on voit un projet de 7000 mètres carrés bi nga xamante ne la mairie est en train de négocier ça avec euh, une entreprise qui s'appelle Maracana Center des étrangers hmm. moo taxoon fan jële ñu def point de presse di laaj parce que en tant que administré am nañ droit ñu rendre ñu compte ñuy laaj maire bi projet boobu lan la projet lan nga wax nii nga ni d'exploitation de de de d'exploitation à travers une concession de 7000 mètres carrés c'est-à-dire presque un hectare ñu jox ko benn entreprise nee nañ dañu fay tabax ay ci ci ci boor géej gi. ci littoral bi. déet waay xanaa kon bukki corniche bi moo mat parcelle fi mu ne. waaw mais xam nga tey ñoom Barthélemy Dias xeet boobu jamono ñi dëkk côté boobu tey fi ñu toll ba ba ñu occupé seen littoral ba nit ñi di dugg si biir géej gi ñun waruñu toll foofu. déedéet c'est-à-dire que xam nga euh, développement bi si gën mooy développement durable c'est-à-dire qui tient en compte les générations futures. Hmm. mais bu nekkee ay hommes politiques ñoo xamante ne politique mooy seen métier. xamuñu métier mosuñu liggéey mosuñu am compétence ñoom nga jiital mais ñoom du ñu xalaat luy développement durable mais un compétent buy xalaat dina xalaat des stratégies. maanaam yow da nga jàpp ne wala da ngay laaj ne euh, euh, géej gi se ni dafa am fu ñu fa fu ñu fa ku ñu fa bëgg a jaay wala ñu ñu fa bëgg a jaay. waaw en fait mairie munu ko jaay sax. mairie bi parce que c'est du domaine maritime. waaw mais mairie yi ak ak trois décentralisation yi jox nañ leen la latitude ñu mën a joxe ay titre de ay permis d'occuper ak ay euh, ay ay ay titre de section session yoo xamante ne dinañ permettre des particuliers ou bien des entreprises ñu ñoo occuper des espaces mais n'empêche dañu war a def projet yoo xamante ne day am intérêt intérêt euh, public mm-hmm. d'accord c'est-à-dire ñun en tant que administré comme dañu am un maire bi nga xamante ne il communique pas avec ses administrés mais politique rek lañ koy gis mu génn wax mais ñun en tant que administré dañu bëgg a changer la donne dañ koy interpeller di ko wax en toute responsabilité mu ñëw wax ñu projet boobu lan la parce que c'est des faits. ci mhm. conseil municipal bi on a des documents en bonne et due forme juste la preuve ba mu fi waxee ba léegi. il n'a pas pipé parce que il est mal en point c'est-à-dire. kon daal gars ñu ngi ci foofu. littoral parcelle bi ñu koy foofu noonu ñu ngi fay ci noonu. ñu ngi si vous avez bien fait d'en parce que temps yi affaire yi dafa mel ni dafa takkar naa seen doo. xam nga bi affaire littoral bi déparé dama dem ba si maire Barthélémy Dias en toute responsabilité. Mhm. laaj ko mu wax ma problème mu côté boobu ainsi de suite j'ai pris position et je me suis engagé à l'accompagner dans ce combat Hmm. c'est le combat de tous les Sénégalais. tous les Sénégalais ce qu'on attend des tout le monde bu ñu gisee yoo xamante ne ñu ngi caxat caxatee alal réew mi alal rek du xaalis kese suuf si si la bokk ainsi de suite mu rendre compte à la population parce que le peuple est plus fort que les gouvernants. bien sûr bi ma yëgee loolu man de fait mes investigations gis ne tamit sama man maa ngi dem si Barthélemy Diaz mais fi ma dendal mais ñu ngi bëgg a caxat caxatee un hectare et puis pire xam hectare un bëriwul trop quoi. si si géej. Hmm. mais bëri na si kër tey boo amoon këru un hectare macha allah. moo loolu kay dama ko mënta hmm. sax dëkk. cest à mën nañ ko jox des sénégalais. Hmm. le complexe bi nga xamante ne moom lañ am vis vis de l'Occident mooy dañu foog ne partenariat public privé. mooy génn rek dem jëli tubaab mu ñëw tabax un hectare Pape Sidi y a des entrepreneurs. man xam naa ni waa Moussa Sy yi ñu ngi nii di ñu seetaan man su ma monsieur le maire dinaa la woo. waaw mbiri suuf soofu góo wax fi la ci laaj soo Euh, ministre de l'environnement Abdou Karim Sall waa mbaaw yi ñëw nañ fi def délégation ne ma ñoom dañu dégg ne dañuy fa war a faqat ci seen euh, forêt classée bi lu war a toll ak nangami hectare pour def ko ay sëg dañu bañoon nag loolu yegg si parce que loolu suñu poumon vert la bi ma diggee téléspectateurs yi ne dinaa woo euh, ministre bi ñu dénk wàllu alam bi def naa ko woo naa ko ñetti yoon jëlul ma yónnee ko bataaxal ne ko man la Pape Sidi dafa amoon ñu ñëwoon ci émission wu Good Morning ci 2STV Euh, wax nañu fa ci mbiru. Euh, euh, forêt classée forêt classée bu mbaaw bi ndax dama bëggoon a xam yow lan nga ñu ci mën a jox comme ay xibaar ngir leeral sénégalais yi mu tontu ma tontu lu gàtt te simple ne ma su fekkoon ku tudd sama tur ma répondre kon du ma liggéey xam naa loolu monsieur le ministre <laughs> loolu moom bu fekkoon ku tudd sa tur nga wàcc non benn loolu du tudd sa tur en fait loolu mooy dañu am luñ la dénk. Mhm. nga koy saytul askan wi. te alam bi ci la bokk daf la interpeller directement ñu woo la di la laaj information déjà jëloo beneen bi ci topp mu yónnee ma tontu bu xaw mu naqari sama xol ma yónnee ko bataaxal ne ko jërëjëf tegaatuma ci baat hmm. dinaa def noonu it ak euh, Moussa Sy xool ba xam ndax dina bëgg a indi ay tontu ci li nga xam ne moom la ñu Go euh, fay wax nekk euh, leader mouvement réaction foofu ca Parcelles Assainies c'est bien fait de de sa part pour que sénégalais yi xam alerte ne leen am na loo xam ne mu ngi raam ci ñàkk bi la jëm moo gën mu dem ba ne kët na jon mu naan xamoon naa ko wala waxoon naa leen ko hmm. message à l'endroit de, de de tous les Sénégalais et de tous les Parcellois euh, Go Faye ban bataaxal la leen di jébal pour jeexal. en fait quand je vais dans des émissions télé j'ai l'habitude de finir en lançant un message euh, à la jeunesse. Mm -hmm. la jeunesse des parcelles de Sénégal en particulier man je pense que mooy li may wax rek on devra tout faire tout refaire. Mhm. dañu war a recommencer lépp. waratu ñu bénéficier ci transmission générationnelle bi parce que sunu grand yi nga xamante ne ñoo doon. politique à 100 pour cent bàyyiwuñu loo xamante ne bu ñu ko jëriñoo dina baax. ñun nag en tant que jeune conscient ak euh, des jeunes responsables dañu war a investir en politique. parce que bu ñu nee fëgg sa dënn ne am naa ay compétence fëgg sa dënn ne mën naa andi changement nga dem sur le terrain appliquer ko pratiquer moo ko gën si loolu laay woo jeunesse Parcelles Assainies yëpp et je pense que le discours est en train de porter les gens ils sont en train de comprendre surtout comportement Moussa Sy bi wane chaque fois. lu bu neexee mu changé jeunes yi. yaa ngi yaa ngi xoos Moussa <laughs> non xoosuma ko en c'est des faits man lu may wax rek c'est basé sur des faits. Uh-huh. Khalifa Sall la àndaloon moo ko moo ko fal maire di Parcelles Assainies. Mm. bi amee problème woon ko ginnaaw dem si Macky Sall. nommé nañ ko nommé nañ ko PCA. <laughs> maintenant c'est son su Parcelles Assainies ñoo soxlaatul mu changé si sunu mairie. je pense que les, la jeunesse est en train de me faire confiance et ñu ngi siy dox di si wax te incha allah Pape Sidi. Mhm. je me dis que si la jeunesse des Parcelles Assainies me fait confiance je vais changer la manière de faire de la politique aux Parcelles Assainies mhm. et puis dinañ andi beneen beneen forme de politique et puis Parcelles Assainies dinañ si gis seen bopp bu baax. je vais terminer par dire que quelqu'un qui n'a pas de vision ne peut pas apporter le changement. Mm. le maire a pris 90 millions investi ko si benn piscine boo ñu ngi koy tabax mëna su piscine municipale nee na pour booy passé assaini di fa sangoo foofu rek ay feebar lañ fay jëlee te jusqu'à présent le projet est tombé parce que nee nañ sóoruñu woon si seen analyse de projet <laughs> nee nañ sóoruñu woon si seen analyse de projet que dañu war fay SDE 9 xaw ma 10 millions pour mu adduction d'eau bi c'est n'importe quoi. C'est des gens qui ne savent pas travailler. <laughs> Maintenant, à, la, à sa place, j'aurais pris Au préalable avant d'investir. Mais c'est des études qui <laughs> bidons. C'est des études bidons, excuse-moi. Maintenant, à sa place, j'aurais pris les 90 <laughs> uh-huh. benn rajo. nga xam ne góofee bu fuwal si terrain bu damee soxla muy dem Nabil Souker wala CTO pour ñu faj ko. Uh-huh. loolu lañ soxla si dirigeant ñu xam mën a identifier lan mooy priorité gox bi. Mm-hmm. man Pape Sidi bénéficié wu si Gouffin bénéficié wu suñuy rakk yi nga xam ne ñooy ñëw bénéficié wu. waaw mhm. nañ bàyyi politicienne bi di la remercier. di remercier waa 2STV di remercier mon ami aussi l' euh, di ko Drizzy waaw Drizzy il est excellent il faut aller le suivre il est sur la toile il fait rire et il donne de très bonnes informations. merci Drizzy et ses posts ce sera dans quelques instants. Amis téléspectateurs de la 2STV, si vous venez de nous prendre un cours, sachez que vous êtes toujours en train de regarder votre émission Good Morning. Et aujourd'hui, dans la première partie, nous avions reçu Gofaï qui était venu nous parler de ces boulimies foncières euh, qu'on est en train de vivre au Sénégal. Euh, te mu leer ñu ne am na benn bu ees boo xam ne bu ñu deful ndànk dana juddu Parcelles Assainies ni ma leen ko waxee dinañ ko jéem a defee noonu dinaa dem buñ ma jànnee mbala ñu toroxal ma dinaa dikk ma ne toroxalante nañ ma wala jànni nañ ma en tout cas on fera de notre mieux pour euh, mu am équipe équilibre d'information c'est promis et juré et craché euh, fi mu nekk nii dafa am benn image boo xam ne mu ngi def tour du net neexul ci xol dafa am benn alkaati bu ma taxawal bërki démb di wax mu ne ma Pape Sidi euh, léeg-léeg manifestation am alkaati yor pistolet bu ñu am bal vrai hmm. ay xale yu ndaw di ko dàqe muy daw hmm. yor xeer di ko dàqe moom muy daw ngir moytu hmm. ma ne ko ah loolu de dëgg la wax dëgg yàlla xale yi war nañ xam loolu te xam ne ñun yéen du ñu du du seen euh, du ñu seen ay noon mm-hmm. yéen da ngeen a nekk ci liggéey boo xam ne fekk ma koy mbalak naan ko eh 7100 francs ñuy tooñante après ma ko non ça moom tout le Sénégal c'est indigné ci jur euh, euh, junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukki ñu leen jox mm-hmm. ci toog ñaari weer xaw ma ñetti weer di ko fanaan ci mbedd mi ñu lay jox loolu après y a des choses yoo xam ne ni mënoo ko wax ba mu jeex bi ñu waxee loolu ba pare bërki démb wala démb ñu gis benn vidéo boo xam ne benn alkaati mu ngi jàpp benn soxna soo xam ne mat nañu yaay ñun ñii ñëpp wala mat na ko sax yaay xëy na di ko dugal ci oto bëmbax ko ba pare dóor ko taatu pistolet loolu la ñuy wax boo xamul nit na mu la euh, la mu la def xoolal image bi go maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Bamba boo mënee ñëw nga dalal ma sama ustaas bi en attendant ñuy xool image bi xoolal li bëmbax ko dóor ko taatu pistolet jañax door taatu pistolet lu ci jar ci yéegal koo xam ne amul mënul def benn résistance mu ngi yéeg li nga ko sant mu ngi koy def après am na loo xam ne bu ko nit ñi gisee dañuy nekk à dos contre le le le service de l'ordre alors que le service de l'ordre au Sénégal n'est pas là pour euh, euh, être notre ennemi le service de l'ordre naturellement est là pour la protection des gens et de leurs biens loolu dafay indi ay euh, Euh, mbir yoo xamante ne nii xëy na du neex ci xool te ñii liñ doon jooytu jooytu bu am solo la ndax dañu bëgg ñu delloo leen euh, seeni suuf yi ñu jël foofu ca gàddaay euh, ca ca ca géejawaay ndax ay doomu aadama yoo xam ne dañu am seeni kër ñu ñëw toj ko promoteur bi bi ñu ko attee ginnaaw atte bi moom dañu ko daan mu am ay mbir yoo xam ne daal bu ñu koy xoolaat mën nañu xoolaat image bi pour une dernière fois ma bëgg ci laaj nag sénégalais yi lan ngeen xalaat ci lii qu'en pensez-vous bu fekkee yéen a ngi ñuy seetaan euh, via Facebook parce que tey xooluma ndax waa Facebook ñu ngi ñuy xoolaa ah. euh, Pamay euh, déggal ma naan Pamay Bamba kan moo nekk régie ah Grégoire ana ana ana suñu ana suñu live Facebook comme ça je vais demander aux téléspectateurs lan nañu xalaat ci image bi ñu gis si vous êtes en train de nous regarder en direct sur Facebook euh, live 2STV euh, continuez de le faire euh, Gofay était là tout à l'heure avec nous il a parlé de ses activités yëgal nañu artu nañu te loo dégg rek ci àdduna magum xamoon naa ko moo gën euh, magum euh, waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko suba moom dinañ laaj Moussa ba xam loola lee lan la <laughs> luñ ci mën a am leeral ngir askan wi xam ci ndax foofu moom defe naa place bi kenn waru koo jaay comme ñu ngi jooy corniche bi mhm. waru ñoo commencé di jël fële wala gars yi dañoo bëgg a jël littoral bi yëpp <laughs> <laughs> merci beaucoup Go d'être passé kii suñu mbokk la mais ndaw la mu yëngu ci wàllu aar bàcc dañ ciy ñëw léegi sëñ bi ma bàyyi la nga présenté wu ak téléspectateurs yi yow na yow yaay kan. salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullahi wa taala ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ñëpp man maa ngi tudd Khalil Amar Gassama. Khalil Khalil Amar Gassama. d' accord. Euh, nekk ci euh, Baytul Atfal la maison des enfants. Mhm. Mhm. Mhm. Khalil Amar Gassama. la maison des enfants boobu lan la. lan mooy lan lan lan moo tax mu tudd la maison des enfants. waaw ah, la maison des enfants. mu ne nga yëkkati kàddu gi ndax dégguñ la bu baax. benn association la boo xamante ni bii ay jeunes ay xale ñoo ko créé moo tax ñu tuddee ko la maison des enfants. Mhm. pour pour éducation islamique maanaam éduquer yar xale yi ci wàllu diine. Mhm. waaw parce que gis nañ ñu euh, bu fekkente ni da jàng alxuraan mën nga jàngal nit ñi ni alxuraan bi ñu jàng ko. après mën nañ ko jëfee ñoom lay neex daal surtout ñi nga xamante ni bi dañuy jàngale cours à domicile di dem ci kër yi di jàngale genre yooyu noonu léegi nag day baax li nga xamante ni bi moom ngay jàngale mu fes nit ñi man koo gis hmm. parce que léegi développement yomb na waa nga jàng parce que mën nga yor sa téléphone di jàng lépp mën nga ko def dañ ci dellu si waat hmm. kon daal yéen dangeen ngeen euh, am la maison des enfants hmm. këru xale yi këru xale yi këru xale yoo xam ne ngeen fay jàng diine ak lu jëm ci seen waa ak ay valeur ak yar si wàllu diine mhm. ajale ko ci diine ah, macha allah yow xale nga am ñaataat nga am 22 ans 22 ans ah kan moo xalaat loolu yow waaw man maa ko xalaat macha allah fan la loolu nekk waaw mi ngi fii Dakar Kër Massar lañu installé wu parce que bi ma koy xalaat que yàgg na depuis ma nekk daara mais après laa ni il fallait que ma parce que nit ki da ngay am vision. dañ naan nit mhm. kenn du ko laaj programme mais da koy laaj vision. Mhm. maanaam lan mooy la teg bëtam ëllëg. Mhm. parce que tey bu xoolee ni éducation dafa xaw a ñu nekk quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans. doo toog sa kër rek di seetaan télé naan lii baaxul lii baaxul da indi contrecarré maanaam da ngay indi luy. jàngale moom waaw kay da ngay mais doo toog rek naan baaxul baaxul. qui ne propose rien à rien. waaw kay. Grégoire vient de nous mettre en ligne en direct sur euh, la 2STV l'officiel merci d'être avec nous. moom euh, Khalil Amar gasama ndaw la bu dëkk Kër Massar. am gis ne gars yi ñu ngi jooytu. naan affaire yi baax na ak baaxul. abaaw dañuy préparer la élément mais dañuy dem léegi ci internet bi xool bàcc Drizzy lan la posté. ak bi mu posté loolu. ban réaction la si nit ñi am Bac les crocs, les postes de Bac comme tous les lundis mais aujourd'hui exceptionnellement il est venu mardi pour inaugurer la chronique mm -hmm. Bac Idrizi est avec nous Bac c'était quoi euh, ce, ce, ce poste semaine bi lan la waaw poste semaine bi mooy euh, message à la jeunesse mooy comme ni ma ko daan waxee sànq parce que tey dañu message à la jeunesse uh-huh. mooy posal pose da ngay pose nag da ngay pose ñu comme ça ah. ñuy liiraale sama genre gi nga xam ne mënuñu liir <laughs> voilà. waaw lii ñu bàyyi la nga nga ñu. waaw je pense qu'il est mooy je pense qu'il est grand temps que la jeunesse se réveille et s'intéresse à. plus à ce qui se passe dans le pays. yi jot na ndaw réew mi. yeewu waaw te xalaat li xew ci réew mi ñu dem Mao Bamos. Mao Bamos Moustapha Gueye Mao Bamos pose. <laughs> nous avons le droit de nous épanouir certes maanaam mën nañ foo ak reetaan. xam nga di kaf mais tamit n'oublions surtout parce que nous avons aussi le devoir de nous informer tout de tout ce qui se passe dans le pays et d'être des sentinelles car l'avenir de notre nation est entre nos maanaam terewuñu foo comme ni ñu koy defee rek si réseau yi di TikTok. foo di foo di snap waaw ça fait partie de la vie. waaw ça fait mais aussi tamit ñuy informé w pour xam li xew ci dëkk bi parce que aussi tamit jeunes yi. Mhm. tey ñoom ñooy avenir dëkk bi. Mhm. lool la ñuy wax si deuxième partie bi bu ñu mënee ñëw si troisième partie bi. mu ngi noonu troisième partie bi mu ngi noonu. on l'a vu tout à l'heure il y a un combat à mener pour redresser notre Sénégal. e nous mhm. devons être au premier rang étant donné que la force nos parents et que nous devons léguer à nos enfants mooy comme li doon wax sànq tey euh, góor a li mu doon expliquer ci problème comme problème littoral beeg problème li nga xamante ñun ñoo ko moom tey am ñenn benn groupe bu ko bëgg séddoo te suñuy parents bàyyil ñu ko fi tey a ñu ko seetaan mhm. war nañ aussi jug xeex ko aussi tamit pour suñuy doom même bu dul pour ñun mais ñu xeex pour suñuy doom ñi nga xamante ni ñoom dans le futur ñoom ñooy mm. ñëw. Mm. parce que tamit euh, am na loo xam ne rëcc nañu ba pare mais li fi nekk nañ ko jéem a xeex protéger ko aussi. maanaam léegi bi quoi dañu dénk loo xam ne. Euh, ñun waruñu ko caaxaane ndax suñu doom bu ñu dikkee. Mm-hmm. dañ leen war a wax ne lii la ñu maam joxoon joxaat nañ leen ko mm-hmm. fexe leen ngeen ko sàmmee. ngir ci seen i njaboot. Euh, ci dellu pour ñi nga xam ne ñu ngi nekk ñi vient de reprendre en cours yi doon leur opinion ci gàddaay ak alkaati bi doon euh, dugal suñu yaay booy jooju ci woto bi. Mhm. ñu bàyyi bàcc mu continuer li nga xam ne moom moo di le poste. waaw nous être bien éveillés en nous armant de savoir et de connaissance mais surtout étant bien informés pour être en mesure de prendre plus pleinement de aux luttes inévitables que nous sortirons des gouffres maanaam. tey dañu war a gën a informé wu parce que tey Pape Sidi da ngay dugal benn information comme par exemple Galsen Fun parfois nga dugal information si commentaire yi gis booy yi dañuy ñëw naan lan moo xew lii kañ la xew mu leer la ne ñii tey ñu ngi si internet bi mais informé wuñ te pourtant lijjanti wuñu loolu te mhm. pourtant ak sa téléphone war nga mën a informé wu mhm. parce que téléphone bi tey du pour euh, TikTok ak kii rek kese war nga mën a dugg information boo bëgg xam na nga koy xam à travers sa mhm. mais tey da ngay gis ni booy yi bon dañuy perte temps lu ëpp mais duñu informé wu léegi nag moo tax ñu defoon poste bi looloo gën a tax mu inspiré parce que tey ñu bari dañ naan ah ñii moom dañuy comédie rek dañuy def humour dañuy def mais parfois dañuy def ay poste yu am sens mais boo xoolee lan moo tax gars ko gis nombre de like yi yeneen post yi di am wala partage yi yenn yu am sens yi gars yi booy duñ ko partagé. seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci après les ennuis en fait. voilà da nga leen di xaw a da nga leen di déranger. da nga leen di xaw a sonal quoi. voilà voilà aujourd'hui si nous restons inertes tout le pays sera vendu bradé partagé entre des mains bien musclées et demain nous aurons rien à léguer à notre progéniture dara du fi des maanaam bu ñu seetaanee tey. dëkk bi ba ñi nga xam ne ñooñu ëpp doole benn groupe boobu ma lay wax séddoo ko tey ñun de euh, après suñu doom yi du ñu am dara lu ñu leen jox. déedéet du ñu am dara lu ñu leen fi bàyyil. wallaahi donc il e temps kon jeunesse bi informé wu xam li xew seen dëkk pour mën a xeex parce que boo xamul li xew mënoo xeex. Mm-hmm. boo xamul li xew mënoo xeex mënoo jug mënoo xam lan moo lan la demee. Mm-hmm. loolu moo loon tey poste bi et aussi comme je voulais dire que cette jeunesse qui représente 65 pour cent de la population est pathétiquement tey jeunesse dañ leen fàtte. Mm-hmm. mooy sànq comme li ñu doon wax tey bu kii jotee élection jotee dañ leen utiliser pour xeex ñoom ñooy sol t-shirt yi ñoom la ñuy jox 2500 ñoom la ñuy jox 5000 ñoom ñooy dem di garder politiciens yi mais après bu ñooñu li ñu bëgg bu ñu ko amee rek dañ leen di fàtte moo tax ngay waral ngay gis après ay jeunes parti yi nekk fii def ay grève de faim parce que yeewuwuñu ñoom ñooy topp gars yi nekk ak ñoom di leen xeexal mais gars yi bu ñu amee pouvoir bi rek dañuy dem jox ko seeni mbokk tey loolu dal na fi gis nañ li fi xew bëri fi ñoo xamante ni woon sax duñu fal seen benn mbokk tey bi biñu demee ba téye pouvoir bi dañoo fal seen i mbokk jeunes leen doon xeexal anañu tey ay grève de faim lañ fi nekkee ay naan di porter ay combat si banlieue bi naan parce que amuñu poste mhm. loolu aussi daf fi dañ si war a yeewu mu deñ fi mhm. léegi pour tëj nous avons des charges et des obligations que nous devons honorer dans nos familiaux mais faute de moyens nous subissons toutes à pouvoir changer en nous, levant tel un seul nom pour faire face à nous-mêmes, mais surtout pour notre descendance. Mhm. maanaam tey boo xoolee jën yëpp dañoo am responsabilité. Mhm. u si nekk tey sa kër boo yeewoo war nga am loo fa def sa waa gaale dañu yaakaar si yow. kon donc tey u seen waa kër yaakaaree si yow jot na nga yeewu pour mënal seen waa kër dara mënal seen waa kër dara nag mooy nga xeex li fi nekk. parce que tey boo xoolee li fi nekk favoriser wul jeunesse bi. Mhm. entrepreneur yi jeunes yi bëri nañ tey dugal WhatsApp ñaata jeunes ñooy jaay. ñëpp dañuy jaay même chose dañuy def moo won ni kon amuñu liggéey boo waxee lan la wax ah dëkk bi amul liggéey léegi nag loolu noonu pour ñu jëlee ko fi il faut ñu informer changer système bi te système bi ñun ñoo ko mën a changer parce que de la population ay jeunes lañ kon donc bu ñu jógee rek war nañ mën a def changement bi. Mhm. waaw tey euh, poste bi loolu la. Mhm. mais bi nga posté lii ba pare est-ce que am nga ci ay retours yu favorable waaw mën a naan a ñu si bari dañ leen wax lii merci d'avoir tiré la sonnette d'alarme mhm. Bachidrizi l'heure est grave la jeunesse sénégalaise ouvrons les yeux l'avenir nous appartient l'avenir du pays nous appartient alors quand tu postes quelque chose euh, liant à l'humour tu vois peu de jeunes mais bon poste yoo xam ne dafa xaw a conscient mais on voit King Jibi par exemple euh, ñun le train qui arrive à l'heure ne nous intéresse pas la mhm. vidéo le motif par exemple euh, kii nga xam ne moom moo di Khalil mhm. Amar uh-huh. euh, ñëw na 22 ans la am pourtant mu ngi def kër xale yi di yar ay ndongo ci nan la leen di jàngalee alxuraan mais ñun duñu citer exemple yi mukk mm-hmm. ñun bu ñuy citer exemple dañ naan waa jeunesse su Sénégal léegi kenn comprendre tur leen mm-hmm. léegi ay video loo motif la ñuy def fekk am na mille jeunes yuy def mm-hmm. lu baax uh-huh. mais duñ ko wone parce que tey loolu laa doon wax tey bu fekkee da ngay def lu sérieux tey boo posté woon portrait kii tey benn groupe comme par exemple gars yi nii lañ koy rombee mais jëlal vidéo le motif yooyu noonu nga dugal ko nga xool. Mhm. partage yi danaan féew. <laughs> jëlal Dabax nee <laughs> en tant que influenceur vous pouvez y jouer un grand euh, rôle notamment la jeunesse euh, notre euh, nos priorités nos droits certains sans oublier. nos devoirs vis-à-vis de notre pays. de notre je suis trop loin et man ay weer la ay lunettes la sol. Mhm. Euh, maa ngi ko doon wax léegi am na beneen commentaire si y a un autre commentaire. on va uh-huh. voir am na am na ñoo xam ne dañuy ñëw ne la eh lii kañ xew ci dëkk li ngay wax nii. Eh, waaw wala eh yow dimbali ñu waaye bàcc da nga ñoo sonal. bëri na. Euh, là je pense que c'est sur Twitter. Mhm. Euh, wala sur Instagram. sur Facebook. ça c'est sur Facebook. Mhm. dafa leer bro. Mhm. pour cent de la population euh, l'avenir de la. de ce pays de ce ñu bàyyi xel. jaajëf Drizzy le, le message, message est bien mhm. beaucoup à cette personne qui vient de nous de nous écrire euh, mais c'est des jeunes mm -hmm. qui prennent conscience euh, mbir yi tey Karim Xurum Xaq est am na ñoo xam ne li ñu def dix mille fois xaalim Karim xalaatu ko. démb rek maa ngi koy maa démb rek maa ngi koy wax maa ngi naan am na ñoo xam ni ñoo ko gën a mérité fi mu nekk. franchement ñoom ñoo fa waroon nekk kon donc. injustice la quoi. non mais mën nañ bañ a juger sax ne injuste la ou pas. mais ouais. dans un pays où y a la démocratie. Mm -hmm. et que les personnes sont libres de yow kii dafa wax benn wax rek nga jàpp ko tëj. am ñoo xam ne dañu wax. def defati ñëpp gis loolu justice bi la ñuy waxal en fait vous ne nous envoyez pas un bon message vous nous kii mën naa def rëcc yow boo defee dañu lay jàpp kii mën naa wax rëcc yow boo waxee dañu lay jàpp am na ku fi taxaw bërki dem xaw ma ci internet bi lu mu waxool njabootu euh, suñu maam euh, mhm. euh, Cheikh Omar Fouti taal daf ko man dama koy damay xool ma ni non mais est-ce nit bu am raison war na xalaatee nii te boo romboon fii tey nga wax président de la république dara mhm. ñu jàppale ne la ràpp ci kaso bi na loolu moom mooy li ma wax démb rek Karim li mu wax bon am na lu am na côté boo xamante ni peut-être man mun du ma si d'accord mooy comme yooyu ay saaga ay yenn wax yi bon parce que man loolu bugguma ko quoi. Mhm. dama koy condamner. Mhm. mais aussi tamit ñu bàyyi ñoo xam ni comme li nga wax wax nañ def nañ bëgg a tëj koo xam ni dafa wax kese aussi tamit loolu aussi mën na indi révolte quoi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous êtes euh, l'avenir de ce pays. Mm-hmm. Et aujourd'hui, Drizzy est venu inaugurer euh, sa rubrique Les Postes de Drizzy. Mhm. Euh, dinañ ci tànn chaque semaine yi gën a neex wala yi gën a xumb wala yi gën a riime ak actualité bi ñu waxtaan ci ak moom. Mhm. Si vous êtes annonceur, contactez-le sur ces différentes plateformes. pour l'accompagner dans sa rubrique et ça nous ça nous ferait vraiment plaisir de lier une collaboration entre vous et nous euh, l'émission de ñoom euh, yaawa ñoom boobu su maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax a baax <laughs> Lamp naa la kon da nga may mayaat image boobu rek ñu xoolaat ko parce que sama gars yi ci internet bi bëgg naa ñu joxe ci seen point de vue mhm. laataa ñu dem ci Khalila Mar about su fekkee mën nga ma ko jox ndaw si ci gàddaay la woon démb lan la ci sénégalais yi xalaat du ma wax dara loo xam ne dañ naan waa tu es contre la police mais dama bëgg waa police wala ñu yor communication police ñu dem Facebook ñu gis sénégalais yi lan la ñu gisee acte bi. Mhm. jàpp ay jigéen ñoo xam ne yoruñu arme defuñu musiba nga leen di dugal ci oto est-ce que jar na lii. ba egg ak ñoom fii lan ngeen ci xalaat vous en pensez quoi déjà bëmbax bi c'est pas bien ak dóor ko taatu pistolet loolu aussi ñaaw na lii dafa ñaaw ci koo xam ne jigéen la sa moroomu waajur la. imaginel boo dindi woon boppam nga teg fa sa bopp waay jur doo bëgg kenn ku ko brutaliser wala kenn ku ko xoxatal ci askan wi la ñu bokk euh, d'autres diront mais c'est du populisme non dafa am loo xam ne dafa ñaaw ci réew mi te bu ñu ko seetaanee rek après dina indi ay dog-dog euh, yu am ci diggante ñun ak alkaati yi te ñoom ci ñun la ñu bokk ñun ci ñoom la ñu bokk benn bopp lañ kenn mënuñoo xarñaar ñoom dañu dem jàng ngir xool naka la ñuy sàmmee suñu kaaraange ak suñu kaaraange bien loolu moo waral ñu tegal leen ko yéen tamit sénégalais yi lépp lu ngeen ci xalaat mun ngeen ko wax fii nga xam ne moom moo di en direct ci page page Facebook bi ñoom alkaati yi dinañ ñëw ñu liir ñu xool euh, ñun tamit au fur et mesure dinañ ci xool naka la ñuy def euh, ba jàllale ci quelques messages euh, Khalil ñu dellu si waat ci yow léegi nga ni association bi ah, bu fekkee élément xale yi baax na xale yi lan nga leen def loolu ci kër xale yi waaw Pape Sidi bala maa dugg foofu sax dafa mel ni kii dañoo bokk benn combat bu ñuy kii. ah parce que maa ngi doon liir kiyam bi mais ñun ci loolu la ñuy ëpp lu ñuy yëngu. Hmm. parce que jeunes yi ñu duggee ci internet bi. Euh, dañuy maanaam dañuy favoriser maanaam sénégalais moo dañ kumpa daal. Hmm. bu ñu gisee tey jii affaire lomotif boobu noonu ñu bëri dinañ ko dañ kumpa pour xool ko. yow ustaas la man élève <laughs> laa damay jàng ba léegi. waaw oh, oh, foogoon dama lay laaj ustaasu kii bi sax. Oustaz. pourquoi tu me poses cette question boobu noonu paa bi waxoon ko. walla. benn dañ ko laaj nag mun wax si vidéo lomotif bi. <laughs> waaw. Oustaz Imaam Kanté walla waaw bi laaj ko bu ne euh, vidéo lomotif bi nangam nangam xale bi ñëw bindoon ko commentaire ne ko Imaam da ngaa seetaan vidéo <laughs> mu ne ko pourquoi tu me poses cette question. moo tax ma ne Sénégal dafa dañ kumpa maanaam il fallait ñu dem xool ko bëgg xam la fa nekk. c'est ça <laughs> parce que nit ñi maanaam tey ji damay wax ne responsable ñaar la. par exemple Pape Sidi yow mën nga am sa doom. Mhm. nga bañ mu génn sa kër dem taxawaalu ji. Mhm. léegi sa biir kër tey yow mën nga dem liggéeyi léegi bu fekkente ne da ngaa bàyyi ñeneen sa biir kër ci biir kër gi mënuñu ko tënk ci biti tënk ko ci biir kër gi mhm. maanaam tey sa doom mënoo ko pine ci biir kër gi naan ko bul dem ci saal bi bul seetaan télé bul jël sama téléphone bul def li del tëdd rek del jàng ses leçons ba mhm. pare nga ne ko bul génn kër gi xam nga c'est pas possible loolu léegi ñun ñi ne ci biti maanaam ñun ñi ne nekk ci internet bi foofu ñun suñu responsable day dellu ci xale bi nga xam moo nekk ci biir kër gi war a seetaan lan la a seetaan léegi li mu war a seetaan ñun ñooy ñun ñooy responsable bi mhm. tey yow sa doom am na âge bu muy toll foofu yàlla da xaajal responsable yi nga am ci moom parce que yàlla nee na keroog yowmal xiyaam bépp waajur dinaa la taxawloo nga jàkkaarloo man ma laaj la say njaboot nan nga leen nan nga leen. ma laaj la question tunkara bi loolu fan la ko yàlla wax. <laughs> yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mais yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax maa ko wax loo wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha maanaam yonent bi lu mu wax rek man maa ko wax loo c'est-à-dire kon wax yàlla ak yonent bi chaque jour dañuy nekk leen dañuy nekk benn léegi yonent bi ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mu ni képp ku nekk ci yéen sàmm nga te sàmm bu nekk dinaa ko laaj keroog la mu doon sàmm mhm. c'est-à-dire kon yow da nga yor say xar warul dugg fenn fi warul di ruur warul dugg tool jàmbur noonu la doom mel ci waajur léegi est-ce que doom boobu noonu waajur rek mooy nekk responsable doom non non ki nga xam ne da koy influencer école bi ko yóbbu muy jàng sax yow monsieur bi koy jàngal warul comporter woo yenn comporter yoo xam ne day yàq sa day yàq sa doom hmm. parce que boobaa am na ci benn responsable boo xamante ni moo koy yor mais waajur bi ndax moom moo ko def ci xelam am na am yow yore woo koy noonu ñun nag combat boobu lañ bëgg lañ bëgg sénégalais yi commencé di def loolu parce que tey ji dañoo indi ñaari affaire benn premièrement dañoo bëgg jeunes yëpp teel a am vision maanaam jàng rek nekkul ni ci nga am da am diplôme rek après jeex na non nit ki dama jàpp ne bi nga commencé jàng nekk en classe parce que ñun bi ñuy def sixième dañ daan organiser ay affaire fosco genre yooyu noonu école léegi damaa gisoon ni tey bu ñu daan organiser fosco dañuy def ay débat maanaam débat suñ biir parce que man franco arabe laa jàngee léegi bu ñu doon def ay débat affaire bu demee ba journée culturelle bi maanaam journée bu mag bi dañuy invité ay kilifa ñu ñëw teew léegi ñun ñi nga xamante ne ay élèves lañ dañ doon def ay débat yoo xamante ni comme par exemple ci wàllu diine euh, wàllu comme sëy ak sëy quoi diggante jëkkër ak jabar maanaam ñun ñu nga xamante ne boobu ñu ngi âgé ay di ans ñoo daan def genre débat yooyu ma ne pourquoi pas lii nii ñu fesal ko maanaam ñu ndaw yi ñu teel am ay projet di yar ndaw ñi ci wàllu diine moo tax man affaire bi duma ko jël ci ay mag mais damay jël exemple ci ay xale ndaxte Sénégal fii nii soo xoolee théâtre ay mag la ñuy jël léegi nag bu fekkee da nga andi benn méthode da ngay jàngale da ngay utiliser ay xale mooy comme xale yi ma àndal nii roqee asma am na ñeneen ak ñeneen ay Moustapha ñoom ñëpp dañuy jouer sketch aussi man maa leen di jàngal alxuraan ñoom aussi ñu ngi jàng ci ay école fi nekk nii damay tànn xale yoo xam ne sketch yooyu am na télé bu muy ci YouTube bi rek lay jàll donc bëggoo mu jàll télé xanaa bi maa ngi leen di nuyu waale waale ah xam naa ne faale bu leen ma mais nuyu naa leen rek <laughs> chaque jour ma indi fi nit nag ñu dàq mu toroxal wax <laughs> Euh, ñun mën nañu xool sketch yooyu. waaw bien sûr xool waaw Abou est-ce que mën nañu xool benn euh, ci sketch yooyu très rapidement rek. Euh, pour montrer aux Sénégalais ñoom li ñu jot liggéey je vois que ñiy wax Firi Abdou Karim Gueye da ngeen di def F R ñaari E parce que bu ngeen defee Firi dafa mel ni Firi. dégg naa ah? <laughs> jaajëf sama gars yi Abou suñu mënee xool benn élément ci xale yi li ñuy liggéey.

jàng ak te war nañu commencé. yow ku la wax ni sax épi moom nekkul si embouteillage yi. comme oustaz ñëwagul est-ce que mën naa leen poser benn question. ban question la noonu. pourquoi ñoom Mohamed Nabi duñ dem ci mosquée bi di julli comme ñun. bam ñu xamee nabi rakku Zeynab yow yaa gën a xam ni Moustapha Mouhamed Nabi boobu wax parce que à chaque fois Moustapha saa suy dem mosquée rek dafa bëgg muy ànd ak Mouhamed Nabi ne yow yaa ko te xamoon ne yow yaa ko mag yi trois ans. moom dafa yaakaar ni jàkka bi c'est pour les enfants yoo xam ne moo tax ñu sax mu kàllaam te ñoom sax kenn waroon na forcé dem jàkka ja. ku loolu dara da see yow Cheikh yow am nga feetu tontu de nga ne mosquée c'est pour les enfants lu tax sama papa di di di ma yóbbaale mosquée damay dem julli ji foofu. yow ñaata at sax nga am. man 9 ans laa am. Moustapha, si papa t'amène à la mosquée, c'est parce veut que tu le Toi, depuis que tu as 7 ans, tu vas à Et Mohamed Nabi, lui, il a ans. Et en plus, toi, tu fais pas beaucoup de Donc ça, ça n'a aucune utilité. wax ma lan mooy muskalof ma xam ko léegi léegi. voilà li ngay laajte sax mi ngi nii ma tiim mais bàyyi ma tekkil la ko ci wolof jaruma koy wax ci arab muskalaf bi mooy nga nga wéral sa gëm maanaam li la maanaam li la yàlla sant nga war ko def nga def ko ba mu mat nga xam say farata topp nag ngay taxawee yii ma lay limal taxawal julli la weer we wóor weeru koor joxe azaka dem màkka lii roqee wax nii lii mooy fardu ayn fardu ayn mooy nit ki dakaa war a def sef forcé mu def ko kenn mënu kaa defaral comme jàpp ak julli loolu moom nit mënu kaa defaral moroomu jullitam mais des na tamit fardul kifaaya fardul kifaaya mooy ñenn ñi suñ ko defee rek ñeneen ñi wàcc na leen muy la comme jullee neew jullee neew ñenn ñi suñ ko defee rek ñeneen ñi wàcc na leen waaw muskalaf nii la méttee kon man yaakaar naa ne damay bàyyi ba foog samay xarit ba pare soog a nekk muskalaf. yow moom waxi xale rek ngay wax mais santal yàlla bi nga xam lii. merci si leeral bi ay mag yu mel ni yéen yombul. mbaa yombul kay comme man. <laughs> waaw Mouskalaf ni la méttee kon <laughs> ah non mais j'aime bien en quelques minutes résumé nañu lu ñu bëgg a jàng mais c'est très bien. c'est ça quoi parce que dañuy ah, bëgg lépp xam nga lii tey jii nii boo demoon ci Laxdari. Mhm. ñu la koy jàngal mën nañu la ko jàngal ci 45 minutes. maanaam mhm. lii nii soo demee nii li mu wax nii. parce que Laxdari dañ ne awwalu maa yajibu ala al mukallafi tasxiixu imaani suma maarifatu di la ko jàngal di la ko tojal léegi ñun nag comme dañ koy bind ci façon théâtre dañ koy def ay dialogue ku jox ku wax jox sa morom léegi soo xoolee Moustapha nee na ko damay bàyyi ba ba màgg ma fo ba may bàyyi foofu dañ fi wane ni waxu xale la wax. Uh-huh. moo tax roqee tontu ko ni ko yow waxu xale ngay wax. léegi dañuy bëgg xale yi di dégager li ñu li ñu bëgg xale yi di ko génne quoi. Mm-hmm. loolu moo tax ñu jàllale message bi ci wàllu muskalaf nit ñi mën koo xam ñu ngi dem nag bu bëri essence ñu ngi tourné yeneen mais bii moo nekk suñ premier épisode après koor gi koor gi doon nañ dawal yu bëri. Mm-hmm. am nañ doon dawal ci koor gi am def nañ ci benn vidéo bu am solo boo xamante ni bii ñun ñoo ko def ci wàllu jàngale yenent bi ni bu la fee bu feebar wàccee ci ab dëkk ñaan bi muy jàngale. Mhm. ñaan boobu ñun def nañ ko ci corona bi. dinaa la boole waa 2S seen programme télé bu xatee. waaw duñ ko mën a jaalale comme ni ñu jaalalee yeneen série <laughs> nga ñëw man ma jël ko man sama émission man maa koy jël di ko jaalale benn yoon par semaine non si tëb xobee allah non il faut nga may jox benn benn théâtre xale yi. xale yi na ngeen def. ñu ngi kaa leen fii ñu gis leen jarul ngeen di wax. kaa leen vous êtes ah, baax na moom lii moom bu ko xale yëpp gis moom dina baax xale yi ndeysaan nee na ko waaw mu moom métti na di xamoo ci dara sax te te li gën a métti mooy booy booy mu kàllaaf li si gën a métti mooy xale yi dañuy mool <laughs> macha allah les filles venez ah, ana elle est où l'autre ñoom. ana keneen ki. ñi ci des ñëwuñu. ah ñaar ñii rek ñoo ñëw. ñaar ñii ñoo ñëw. macha allah venez. Ah, macha eh, des na kële. may mun a sur ak ndiir ma leen laa doon waaj kaa leen ngeen taxaw nii den ak. <laughs> dem kaay leen kaay leen kaay leen ah garaawul kaay leen yow yow noo tudd Mariama yow yow yaa doon liir liñ doon bind si arab noonu yow yaa tudd na yow moom asiyatu moom mag nga yow moom mag nga moom asiyatu moom yow yow asiyatu yow moom mag nga doo bébé yow caca quel âge deux ans douze ans boo <laughs> deux ans mu dóor la yow ca tu as onze ans yow 32 ans <laughs> vous êtes en tout cas formidable da ngeen di jouer ay sketch yoo xam ne da ngeen ciy xamale diine c'est bien on vous encourage wax naa ko léegi Khalil nee naa ko bu fekkee waa télé bi. ñoom dañoo amul programme bi dafa xat. man hmm. dinaa leen jël benn par par par benn yoon par semaine. <laughs> may jàllale sa benn sketch en batch. waaw on va on diffuser un sketch par semaine comme ça nga xam ne bu yegsee rek dañ koy jàllale. li ngeen di def liggéey bu rafet la. xale yi mën si jàng ah, sax félicitations ma ma wax gars yi ma ñaan ñi seetaan bu ngeen mënee dem YouTube xool leen rek. ngeen may leen ay baytul atfaal la ñuy def. dañuy def baytul atfaal. baytul atfaal mooy këru xale yi. ah baytul atfaal waaw baytul atfaal d'accord euh, wala sinon am nga Facebook. waaw am naa fees Khalil Amar Gassama am naa fees Khalil Amar hmm. comme ça dinañ may jàmm waa seen petit gaal yéen da ngeen <laughs> comme ñu waxee seen petit gaal am ñoo xam ne dañuy pasiri ku nekk nga am loo pasiri bëri nañ ay programme de nekkul sketch rek la def de maanaam hmm? xale yi nga gis nii des fois dañ leen jox ay exposé maanaam affaire programme yi bëri la du sketch kese hmm. ndax xale yi ñu ngi def ay rubrique jàngal ma maanaam tey ji da am sa benn doom sa kër ñu jël benn xale baytul atfal jël ko ñun suñ propre moyen oto. Mhm. yóbbu ko ba sa kër pour am autorisation sa doom pour au moins journée bi ñu def kook moom yendu jàngal ko benn suuratul alxuraan. pour mu mokkal ko wala ñu jàngal ko faratay julli wala faratay njàpp. loolu ñun dañ ko bokk na ci suñ programme bokk na ci suñ programme ay concours alxuraan yoo xamante ni niveau la maanaam xale bi jàncours à domicile sax la ciy bokk parce que boo xoolee Sénégal fii concours ñi mokkal alxuraan rek lay doon mhm. mais am na ñoo xam ni mokkaluñu alxuraan ñun dañ koy def noonu concours par étape étape maanaam ñi gën a féete ndaw ñi xaajal kaamil bi ñi mokkal alxuraan aussi ñu ngi def beneen ñu ngi def ay ay rubrique yu bëri daal ci baytul atfal mais théâtre bi moo feesagun quoi très bien mhm. en tout cas je vois qu'il y beaucoup de gens qui sont en train de vous encourager mm li ngeen di def rafet na torop nit ñaa ngi kontaan bu baax ci yéen yéen ñi ñu doon seetaan nag euh, li des ci waxtu bi bareetul Euh, am na suñu benn grande sœur bu tuddoon Mariam Samba quand on était très très jeune moi je me souviens. waaw ah j'étais moom dama doon jógee école élémentaire mercredi soir je pense. mu nekkoon RTS. Euh, xale yi xaw ma jotaayu xale yi xaw ma ah, xale yi tuddoon théâtre xale yi la daal. Ah. damay daw ma ñëw pour après damay seetaan Samba ëllëg ak théâtre xale yi je je je venais regarder ça mais je pense que format bi. Mhm. Euh, lii moom wax dëgg yàlla nice na trop et puis je pense que Alaaji Taal Ngol Ngol dina rafetlu initiative boobu Alaaji Taal Ngol sax. ci kanam tuuti moom mooy dellu si ak euh, yéen dans quelques minutes dina fi toog ci li nga xam ne moom moo di jotaay bu am solo boobu nga xam ne waa Sénégal yépp koy rafetlu dañaan ma même Pape Sidi sa paa bi tàng na ne ma leen waxul dara <laughs> li muy wax hors antenne bu amul ay censure yooyu loolu moo gën a tar paa bi <laughs> si leen sax en tout cas il est véridique et on l'aime comme ça merci beaucoup euh, Khalil merci beaucoup xale yi kontaan nañu bu baax ci yéen euh, on va faire comme ça on va demander à la deuxième dañ leen di seetlu waale <laughs> ñu indil leen pourtant am na kuy laajte ni seen numéro de téléphone sax ah. seen numéro de téléphone. waaw 77. 77. 813. 813. 26. 26 67. 67 waaw 67. Samba Ndiaye fii la nekk 2S mais ay yaramu neen lay def. y a des mineurs dans la salle. <laughs> non chaque tournage sax chaque épisode Samba sa cuus yi nga xam ne cuusu mag <laughs> chaque épisode numéro bi dina wàcc. ah waay Samba bul ñu um ñun ay xale la nañ dem YouTube rek dem YouTube buñ eh. ngi lay sant bu baax di la gërëm yow it oui di la gërëm aussi di wax ni c'était un plaisir ah, di jox eh. la jamal nii bàcc waaye bii maa ko jamal sama bopp yaa jam nii gars yi ñëwaguñ <laughs> yi ñëwaguñ ko ah. <laughs> gars yi jamal bàcc ah. <laughs> parce que lamp du ngeen ma dimbali ci Samba mu leen ci kër gi Samba ay xale Ndiaw Ngaye couper l'émission bi ci kanam tuuti retrouver El Hadji Tall Ngol euh, à consommer modération les programmes de la première chaîne de télévision privée du Sénégal à partir de 8h30 dans le